mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyoo baatu asalaamualeykum wa rahmatullah di ziyaare jataay beeg mbooloo mi fi teew yépp di jiital ci ziyaar bi suñu sang suñu wasila na cheikh Mouhamadul Amin di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di jare, particulièrement Cheikh Omar Sané mom mi nga xamni mom mo waral bes bi tay jotaay bi dafa feñal bopam ndax soxna wax sank mi ngi koy junjou mu ne ku bëgg ku lay ñëwal da ngay demal nit ñi ko xamul noo koy def ni mu la def rek tax Cheikh Omar mention spécial damay tok ba mu yag ma fer ci yow lol fa di bég di kontaan man rek may tok ngir lan bés bii dafa am lu tax mu jëmmu Cheikh Omar yàgg na Bignona ku ne xam ko fi ndax nag wax dëgg yàlla cadre la ci dëkk bi di doomu dëkk bi it nag jànge fi am fi ay ndey am fi bàyyi yàlla dogalit mu doon kilifa lool ci hôpital bi Tok na say mbokk médecin toog ba tàyyi ne suñu hôpital bi fu mu toll tey moom moo fa yóbbu ngir lan pas-pasam ak njàmbaaram say mbokki dret ñi ngi fi teew waaye tamit say mbokk ci yàlla ñi ngi fi teew say mbokki deret buñ la dé sédel war nañ la mëna sédel ci walu deret waaye say mbokk ci yalla buñ la dé sédel ci yalla ji ngeen bokk ci lañ lay sédel mu doon kenn nak di jambar wax deug yalla jambar la donit ko xamni ni jarna naw ndax lépp loo xam ni toog nga fii nga waxtaan ko ak Cheikh Omar doo ko déggaat ci àdduna lu mu séq ak jaam lu mu mën a doon doo ko déggaat ci àdduna tayit du ñuul tay suba mu weex damay takk ay at maa mën a seede ñépp ñu fi toog waaye ni mu mel noon la mel boo ko déggee reetaan ngay njëkk a dégg boo ko gisee reetaan ngay njëkk gis loolu moom mbégte góor yàlla la kon saane sa bés bi du ñàkk mu mel nii ndax dang ko ji joom doomu aadama yi da ko ji nit ñi waaye li ma la yàgg di wax rek moom laa lay waxaat bul gis sabab mukk lu jaf ji rëy rëy rëy lu mu kawe kawe kawe luñ ko tudd tudd tudd def ko rëdd ci ndox jàllal dem dara du la teree dem xam nga lu tax may wax di xaas sa li may wax day ne bàyyi gay moo ma ne loo téyanteel ma téq mu daanoo jox la paaka nga rendi loolu laa gëm ma ku la teree dem du dem te yow da ngay dem Cheikh Modou diine la joxe njaboot lool moo waral doomu gaynde daal gaynde rek lay doon dama toll fële ma dégg waxtaan bu facha lool ma ne waa kii kan la war a doon ma ne kii de Fallou Keita la من يوم بني خالقنا الولد الشر الأبي ولد الشيخ كأنت شيخ لن يالا سد بنكو خير دين لن يلا جو براخ الدرا بويخ دور ndax njambe borom daaro mo laa ilaha illallah faqat laa joxe yokkuma wàññiwuma ku yokk yaa yokk waaye ku wàññi yaa wàññi man laa ilaha illallah laa joxe te laa ilaha illallah moo di kënzu al noir moom laa ilaha illallah diine ba diina jeex laa ilaha illallah la faqat amul yokk amul wàññi saane siggil ci kaw nga dox nga téen nga dem ndam rekk ci kaw ci kanam ci lu baax billahi lazi la ilaha barke Cheikh Modou Gueye Cheikh Fall la nga dugg foo am solo gis nga kenn ku nekk nattal sa bopp ci mbir mi àdduna yàggut ñetti fan la bala nga juddu sa biiru yaay ya ko wax salon bu neex la buñu organiser bi nga genné fan yi ngi fi def ak biñ lay tak di la ci bàmmeel mo waral serigne Saaliw doon faral di wax ni ñaari biir ño am mune sa biiru bop bi ak sa biir bàmmeel mu ne sa biirul bopp bi yàlla mi la ko sàkkal moo lay warlul li ci dem waaye sa biir bàmmeel loo fa deful doo ko fekk te li gën a jafe ci àdduna moy tawatu Cheikh Moussa bi mu doon jooy naka laay def ba jël laa ilaha illallah def ko ci nit mu yëg ko mu ne feebar boobu rek laay am dañuy faral di wax ni yonent yi ak saxaaba yi wàlliwu yi ak borom jamono yi ñuy nattable seeni mbir ma ne leen lépp benn la waaye nag li yàlla wax moo ci gàccu wal axiratu xayru lakka minal ula yàlla yónni na yonent mu woote lu ëpp junne ñaar fukki topp ñu ko yàlla yónni na yonent mu woote ci ab quartier la ko yàlla may mu woote ana li ñu njàmbe defal lan la ana lan lañu Cheikh Moussa defal li ñu njàmbe defal valeur bi ma ni ñaata wàlli woo ne du jeex kenn ku ne tànneef la ci biir tànneef yi ku nekk sa jagle ki taxaw na Serigne Touba Xaadim Rasool yàlla defal na ko lu mu defalul kenn wax na dëgg booy càmbar mbiram beneen mbir la moo waral dafa am benn woy buñ koy woy woy boobu dama neex ba ci kanamu yàlla ñu ne ku tedd ki nee na man de bu may bind aras dafay jaayu malaaka yi naan kii du nit rekk xanaa barki lazi laa ilaha illallah si kasoos su ma koy déglu xaal bi may nekk mag yàllaa ko yëg limaamu ñëw fële ne xat jaalaa ruuhu muhammad fil jismi aaja boo daaya laahi yaa maxsaral insi jinni idi rasulullahi ilaykum ku ko weddi boo dewee tabbi naare jahannama nañu déglu waxu mag ñi Cheikh Ahmad ne ku yàlla ma sa yónni jël naa sama ndëggu tànk teg sa loos yëg yàlla yu wér wax. macha allah. njàmbe duma yonant waaye lañ joxoon yonant yi moom lañ ma jox arfan bi arfin mu ne yonantu yàlla Muhammad daa wax Tidiane wax Cheikh Abdou Khadir Jeylaani wax ma wax ku wutee ci lii woote foo mën a jublu safara la wëlbatiku na yàlla laa di wane ak bëti bopp gi tangaas ku ñëw ci manta ba ak sa bopp ma yeggala ci yàlla ba nga yëg ni li nga yegg yàlla la yàlla may na njàmbe laa wax lu mayit ku jiitu ak ku mujj ku bañ ak ku nangu njàmbe fu xaleele du daaru fu wootee du daaru fuñ ko denc daaru nañ ma wax ci yonantu ba ci wàlliw ku ko am mani ci yonantu laa wax ba ci wàlliw ku ci xam kenn ku am loolo na ma ko wax Medina Cheikh Ahmad Tidiane Fass mu tëdd dëkku fa Serigne Touba fi ñu suul muy Touba dëkku fa Seydi Alaaji Malick gaayal rek dëkkul Tiwaawan Limaamu Laay dëkkul yoof Baay Ñas dëkkul fiñ ko denc muy Medina mennum njàmbe moo wootee ci dëkk faatoo ci dëkk bi ñu denc ko ci dëkk bi muy daaru kër Mor Xuraja moo waral mu na nag bi jure na Tuubaa waaye ku naan ci meew mi da ñëw daaro boo ñëwul ci daaru do di araamal meew mi ana lu ñu njàmbe defal ana lan la ñu njàmbe defal badi la naa badi la xam nga badi la naa tàllal leen fetal laa jox fetaru ñaari gémmiñ bu ngeen dooree nii téeméer daanu bu ngeen dooree nii téeméer daanu bu ngeen dooree nii téeméer daanu mu ne fetal bi ma leen jox mooy xam-xam bi ngeen yor ak seen gémmiñ képp ku ngeen layool donte jàngu leen benn araf ci téere bi na jeexal téere bi bu ngeen toogee yeew ko ci xam-xamu téere bi te loolu kan la tënk ñépp la yeewi na woote leen paas leen jox leen xaalis paas leen ngeen tàllal li ma leen jox bu jeexee ngeen dox kii moo gore lii la ñu moo du defal ku mu tënk ku mu joxut xam-xam leeru yàlla la joxe ba pare ñemeloo ko nit ñi ànd ak ñoom ci terrain bi gën leen koo bëgg nag ba pare seexal ñu ñëpp ah. yaa gore li waaj ndaw si wax léegi ak a wér baax nga baax nga gore nga tabee da nga yaatu def sa njabot yep ay noble ko ci gis bëgg ko for lek civilisation ci yow la jóge xolal jam ñi ni ñu civilisé li lepp yawa bark Cheikh Moussa mané pep Njambe la wax bu avancé Cheikh Modou ci la matama ngi ci mo fi njëkk indi jasineer di ñu nan da bari titeur da wané da doj da nangam mu ah lan lañ xamoon perkaal takk juróom-ñett fukki junni kurus yaa mi maa ngi jéggalu mais loolu lañ xamoon barki lesi laa ilaha illallah loolu lañ fekk ci pays bi ñun téeméeri kurus ngay takk sa baat sor perkaal jaam bi booy sant yàlla sa cant yàlla demul bañ kii dee tiitaru ak cantam des dëgg la macha allah lii moo tax nag jataay ak tiijaan daa neex tiijaan dañoo firi nii la ñuy def ak suñu sëriñ si de nii dañoo firi ah, day neexal waxtaan dangay dangay dangay dangay dangay ngay da ngay da ngay yokk jal bi waaw na jàll waaw na jalu tey la ko may jalal na jalu waaye bu ma ëpp nag <laughs> yàlla na jàmm yàgg islam mooy jàmm islam mooy jàmm islaam mooy jàmm islaam bu ci jàmm génnee jeex na nañu xool fitna yi ci dëkk bi nañu xool nit ñi kenn du am sax problème mais dangay ngay boo xëyee sa yaram yépp ay metti gis nga mbir mi lii la bu lii amul jàmm dara du am jàmm njàmbe loolu lay réparer loolu lay defar ba zéro stress billahi lazi la ilaha illallah aucune stress ma dégg tubaab léegi de beneen jataay bu dul jataay yàlla du jataay billahi lazi la ilaha illallah njambe islam la woote bu weex dur képp ku jël sa bopp te bàyyee njàmba sa bopp wóolu ko sa bopp mu def sa bopp loo xam ni sa nday mënu ko ci yow sa baay mënu ci yaw sa maam mënu ko ci yow goree la ci safara fii ngay dimbali say mbokk lii lañ defar Omar Sané mi loolu la yàlla def ñun ay ceddo lañu ceddo cheikh moo doon ñu def wàlliwu billaahi wallaahi wal kitaabi wàlliwu kamaal laa man cheikh Modou yaa ma ko def dañuy dog laa wax dog dog dog lu ñu neex mu am lu ñu neexul doo am barki lazi laa ilaha illallah barki alxuraan li may wax duma ko kafaara cheikh Modou ñu ko def ci benn baat muy laa ilaha illallah tegi góoroo góor Cheikh Modou góoroo góor cum yaatan di nga daj àdduna nag kap daj nga sax de waaye des na ay ruq lépp ngay buub def ko nii ku la neex sedd ku la neexul du seddu yow ëpp nga ci man sa ndongalu ndaw tuuti lii rek boole ma gaa yi seet ma tër leen ñoom ñëpp rendi billahi lazi la ilaha illallah man laa ma jay ma ni yàllaa ma jaay damay bàkku déggu Casamance laa taxaw ma ni ku ma teg loxo jaam mënul ci moom ñaari salaamaaleykum demal foo yaakaar waxatuma xam-xam de li may yëg laay wax te moo am yàlla nañu yàlla defal sutura waa Bignona am ngeen wàlliwu ci seen biir waa Bignona am ngeen wàllu seen biir waa Bignona am ngeen wàllu seen biir mën nay lakk tubaab nag mën nay soloone gaa yi mën nay dem ay cérémonie mën a pikiir raate di faj di soigné waaye pikiir bi bi bi nga xam ni ku mu ko pikiir waxuma la dootoo feebar dootoo dee mooy laa ilaha illallah nga ñaari yoon docteur sair docteur baatin gars yi daa mel dañoo ndóol tey dañoo ndóol baal naa leen bàyyil ma baal leen mais dafa neex bi muy jóg di àkk ji Cheikh Modou Casamance la jóge de def pas-pas gi te lool dugg ci oto yi te xale bu tuuti bu baayam ne woo woon eh yaay day yàqu moo tax lu yàlla def du hasard dara yàquwut dara du yàqu lawoon fa woon ñëwoon ñëwaat xale ba ne Dakar di jàng dajeeg Cheikh moodu muy rakk ci Abdallah mu jël tarbiya ba gindee ku papa ji na day yàqoo foofu ndax yàlla yàlla yaafa ne gàdd ko indi Casamance ne fii sori na bu gisut ku fiy dund lii dina bàyyi fekk fii la buujoo mu ñëw fii wax yàlla ba dajeeg jëmm ji moo ko ne ciix ci hôpital bi rukk ko yabal ko yëmbal mu def pas-pas yi te jóg ñëw yëmbal bi mu ñëwee premier jour bi fekk fa sang bi njagamee la fekk mu toog wax yi mu wax fi mu jóge yàlla dogal mu dem ci ëllëg si mu dellu si waat dajeeg sang bi mu jox ko ci kar mu téye dëggal lool nag doon ko gore doon jàmbaar ba tey gis nga ko ma ni cëm-cëmbal ma réeroon cosaan feeñ na fii ci Casamance léegi ñëpp di seex Cheikh Modou loolu nga def da ko koo doon ci njàmbe boroom daaru kon samay mbokk kuy caaxaan du yore micro te yàlla wax na benn aaya bu am solo képp ku ngeen dégg làmmiñ ba mu tudd laa ilaha illallah mu ne bu leen ko noonoo saxuñ ci lu laa ilaha dañoo xam secret bi nag la ilaha illallah daa am mbuut daa am sirru ne malaaka yi tudd leen la ilaha malaaka yi sabal laa ilaha di sabal laa ilaha di sabal la ilaha illallah ak bopam di jaayu di jayaxu di jaayu di jayaxu bana meng ci jëm mune li la ci bëggoon mi ngi mel sa géwal bu la xam ñew sa kër di la way lo am diñ ko ko jox mom la kay wax legi sa mam dañ koy way ba mu dag lupp ba joxe koku tayetu ko de amna leneen lu mu yek ni la la ilaha illallah melak ruh moo waral fu ñu tuddee laa ilaha illallah te muy dëgg jaam bu doon romb di nga ne tekk taxaw la lay téye doo ko xam pont lañu lay daaj du yow moom la nga gis koo xam ni day gaare otoom taxaw dagg ay soxlaam ngir laa ilaha illallah bi ñuy tudd ci béréb bi nga gis koo xam ni day jékki-jékki doon nelaw jóg ñëw toog ngir laa ilaha illallah bi ñuy tudd ci béréb bi rendez-vous la ku ñëwul da ngay raté kii ñëw bokk ci kuréel gi jaayu am koo xam ne day am alalam génne joxe am koo xam ne sax da koy def sax mu jooy am koo xam ne sax non crise la koy def muy mbëkk ka dóoru te du ko yëg cosaanu ruux la ngeen yaakaar ni li yàlla wax ni laa ilaha illallah kalimatul sahadatul islam saayir la laa ilaha mu ne kalimatul xaq miftaaxul janna ngeen yaakaar ne saayir la du saayir de bi ko yàlla waxee nag da koo codé bi nag moo xam ne mu ko tëjee day ko ay nitam ñu mel nii sa portable nga tëj ko def ci code tegal fii naajal jël jéem ubbi soo ma wonul code bi du ma ko ubbi au contraire may bés day dem ba bloqué sax nag yàqu kay lay gën a gaaw ka defaru moo waral di tudd laa ilaha illallah te xamoo siru laa ilaha illallah danger la danger la de nit ñaa ngi koy foowe nag moo taxit boo nee laa ilaha illallah ci mbedd nga gis ku ne bërë bërë bërë bërë ay waay lu xew man tiit naa sax waaw wallaahi waaw eh génnal ci mbedd rek wax laa ilaha illallah ci kaw di dem dañuy daw si laa wax yërndu lan moo xew mbaa jàmm la pour ñoom laa ilaha illallah du jàmm ka tax a jóg te laa ilaha illallah ndekete yoo mooy suuxat jàmm da gis ku daw yërndu ay waay man tiit naa sax pour ñoom laa ilaha illallah musiba ak fitna ko tax a jóg te laa ilaha illallah mooy dund nit mooy dund nit kon nag laa ilaha illallah boobu la njàmbe joxe lii la sang bu tedd bii def ci jaam ñi fi toog sànq ba tey yéen a ngi gis bi muy ñëw gis ngeen rëj-rëj ji gis ngeen kërëng-kërëng ji gis ngeen kërti kërti ji du dara de xiir la rek te wallaahi jaam bu bëggul sangam ba bëgg ba dappatoo ba mel na ku dof bëgg ba daa des bëggul yàlla eh bëggul yàlla laa wax bëgg sa sàng mooy bëgg yàlla yàlla amul lu ëpp nit ñi yàlla amul laa lu ëpp nit ñi yàlla li mu am yépp nit ñi la ko jox ba boppam sax nit ñi la ko jox déggoo ñu ne boo bëggee am yàlla demal ci diw boo bëggee am yàlla ñu ne demal ci diw moom de waayu yàlla la doo koy dégg kon ku bëgg am yàlla foo jëm ci nit xalifatullaahi fil ard kan la du nit du nit nit la di kon ku bëgg a dem am yàlla dangay dem ci xalifatullaahi fil ard saafonteeg moom mu jox la yalla ba nga am yalla mo waral ma taxaw fi saña bakku mo waral deg ak am solo amna bes ma toog waxtan ba yag mané suñu sang bi moy borom yalla moy borom yalla sama mbok mi tidiane bi ne man ne ma saa lay ko li nga wax nii ëpp na de ma ne ko akama ah, ko mën a lay na borom xam-xamu daja jamono bi dajaloo ma lay ko lay bu amul sikk kenn du ci tegge arfan ma ne ko borom yàlla kay mooy ki yàlla may boppam ba maam yàlla ki am yàlla te sañ a joxe yàlla ba ku ñëw ci moom am yàlla kookoy borom yàlla ku ñëw ci moom mu jox la nga am yàlla mu dese yàlla dëgg la leneen du ci tegu lu dul dëgg la bu ci tegoon ma dóor la cour de ñu misaale ko mël fa soxna doomu doomu yonent bi Faatumata bintu Rasul ñu ne jigéen ñu màkka ñi biñ ko waaraate kat yi dañ koy wax biñ koy jaay affaire di ko jaay affaire de noblesse ñu ne baay bi da koo jox mël fa boo xam ne àjjana la jóge ñu ne dañ koo war a woo invité ko ci cérémonie bi am ngir toroxal ko ndax amul lu mu sol bi ñu ko woowee mu ñëw wax ko baay bi di jooy ne lu ma sol jibril indil baay bi mël fa bu jóge àjjana mu jox ko ne ko solal li yóbbu koo dàqalewul du la dàqale nee bi mu solee ba ne tëll otes yi ñu defoon ak buur baak doomi buur baak otes ya ñu defoon ba yaakaar ni bu ñëwee dañ koy golajal ba ñu ñëwee xoolatuñu seen bos moom la ñu topp ndax xet gu neex geeg taaru tisi bi sa tisi bi foo ko jëlee foo ko jëlee foo ko jëlee mooy leen da ngeen bëgg ci tisi bi sam papa ma ko wutal ñu ne ko waaw ñun de dañ na woon boo ñëwee fi dañ lay toroxal ndax nangam ak nangam ak nangam mooy leen ba ngeen ci tisi bi ñu ne ko waa mu ne waxal an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu nga wax ko nee na mu ne ñoreet wër ñaari yoon jël si ne tàppit dagg na la solal nga sol nañu am xel keneen ñëw taxaw ne bëgg naa mu ne ko waxal an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu nga wax mu ne ñoreet jël si ne tàppit dagg ne la solal ba jigéen ñépp jeex waa mël fa boobu ban mël fa la mooy sekkare baatub laa ilaha illallah ñu ne ko dañoo gis dangay jaay tiitër loo ñuy jaay mu ne leen li ma leen di jaay may leen ma tuuti deux heures jot ma won leen ko deux heures jot ñu nodd ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulallah mu ne baat bii ngeen koy dégg turu bàyyi kan ngeen ci dégg sama baye rek am li ngeen deg turu yalla tek ci turam li la leen eppele lolu njàmbee ñuko xamal ci darajay Cheikh Modou yalla yalla barkel buñ ko topé du jeex daño contane daño fess del ndax jotaay bu taru bi ndax melokan bu rafet bi ndax li ñu fi gis suñu xol dafa fess Cheikh Omar liggéey nga de li nga am ni yombul de yombul de yombul de yombul de gën a la jàpp gën a téye gën a dox gën a dem bañ a geestu ci kaw ci kanam man iñaanuma soxoruma xalaatuma ko te duma ko mës a def maa gën a baax ci àdduna man maa gën a baax ci àdduna te lii ma warloog yéen kese ku ci am sa bés ma ñëw taxaw waxal la say baax baax sëy naa leen mi bu ma koy tagg ñu ne buur la yow noonu Cheikh Fallou yow dinaa la tagg yow dama lay bàyyi ba nga kii ak ci ak Cheikh Mamor <laughs> yéen moom xamante nañu maa ngi yéen <laughs> waaw yéen moom seen kër laa leen di fekk sànni mbaraa kii si fële waxal leen lu baax barke Cheikh Moussa dafa yàgg lu yàgg dëgg la lu yag deug la ñi kay dañoo nay Cheikh Fall la waroon njëkk a ak ma mormé yal na leen yalla defal jam yal na leen yalla guddal sen fan yal na yalla wéral cëri yal na yalla sam leen ar leen laq leen fu yàq yeggut man limay ñaan jamono bu ne goor yalla bu naraam galankor yal na mako yalla tek te teggiko billahi wallahi wal kitab. ma ne luy jafe-jafe wala lu nar a metti góor yàlla yàlla na ma ko yàlla teg te teggi ko ko yàlla yàlla barkeel sang bi kontaan nañu bég nañu waxi dof rek nag laa wax waaye sama mbégte rek laay feeñal asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu